acca mbokk yi ñu ngi leen di nuyu tey santaat yàlla bu baax a baax tey jii nag maa ngi toog ak eh, Lamine Niass ak sunu doomu nday assura Fallou muy koo xamante ni yaakaar naa ni yéen Sénégal yëpp xam nañ ngeen ko waaye ràññee ngeen ko si combat bi nga xamante ni am na muy eh, combat patriote yi ñu taxawoon opté ko pour xeex pour eh, jël réew mi pour jubbanti réew mi di réew mi Sénégal ngeen gisoon ko nag mu am ci taxawaay bu am solo li nga xamante ni bëggoon nañ ko yàlla dogal mu am asura nag xam nañ ko bu baax ndax yaakaar naa ni dañ koy dalal solution lu baree baree bari mais mosuñu ko dalal ba dara sa émission ba ndax lépp dañ ko teg ci yoon ndax ni ñuy waxtaane ak moom ndax ñëpp xam nañ ko ci fullaam faydaam ak xadaram ak bëgg gi nga xam ne bëgg na ko réew mi ak lépp lu mu nekk day jàpp ni di mu nekk nii da see war a am ndam kon nag bu yàlla dogalee muy waxtaan ak i nit ba am ñu dugg di ko ruubee ba yëngal ko sax ba mu wax waxee yoo xamante ni jàpp nañu ni lii mu wax tam tami waxal xam na ni moom moom wax ji mais jéem nañ koo détourné pour moomale ko ñeneen. Mm-hmm. xam na ni lu toll ne président ba si Diomaye Faye président Ousmane Sonko ak procès bi lim si daj mu jaral ko lu ne du ñëw ba egg si fa mu jëmoon nga xamante ni yëkkati drapeau bi sant yàlla si def muy yàq loolu yi wala muy saaga wala muy wax lu mu wër ta wax mais ñoom moom wax ja xam nañ ko duñ détourné ay waxam kon nañ ko jàppale bu baax te ñaanal ko te li mu mébéte liggéeyal am réewam yàlla kart na ko mu liggéey ko ndax si moom mooy fulla fayda te mos ñoo koo dalal ba wax mu a wax yéen ko en tout ngi koy a baax te ñi wax ji a moo ngi nii saa sigu ah kon nag salaamaaleykum mbokk patriote yi kon nag Solution TV man nag Azoura sama frère la en dehors de Pastef parce que avant ñoo dugg kaso man ak moom xamante nañ kaso bi tamit yàlla dogal ñu ñu benn chambre bu ñu nekkoon mi chambre 44 presque nekk nañ fa lu mat 6 mois xam naa ko man ak moom yàgg nañ mais di leen wax nag adduna moo demee noonu parce que tey doomu adama dina am lu nekk sa nga bëgg ko génnee doo xam naka nga koy génnee mooy waral des fois ngay waxee ak benn fugu bi mais a a bokk li ngeen bëgg muy esprit de patriotisme tey di nga gis bëggul lu la métti parce que xam nga la bëgg mooy tey ngay waxee pour nga changer ko parce que tey jii képp koo xam mu ngi taxaw naan la Azoura defaraat sa kàddu pour lan la parce jege bi nga jege président Ousmane Sonko ko dégg ñoom nii mu néew mu tuuti ku ci ku la xool da lay xoolee benn leader ku la xool day gis yow Ousmane Sonko ko Sénégal nag suñu di ko wax que jàmbaar nga gaynde nga mhm. mais sénégalais yi bañuñu la bañuñu la de barki alxuraan bañuñu la mais dafa am loo xamante ni xañ na moo nekk seen xool ñu bëgg loo ko wax xamuñ nañ la koy waxee moo waral yenn kàddu yi mais bu ñu sañoon wax dëgg yàlla bu nekkee am nga loo wax ak ñoom mën nga ko wax ak ñoom fii ñu déglu la sénégalais ñu ngi jàkkaarloo yow mhm. salaamaaleykum maa ngi nuyu ñëpp Sénégal pe di nuyu waa Ziguinchor di nuyu waa Bignona di jaale ñoom ñoo ñàkk seen bakkan mhm. maa leen gars yi yéen a ngi feet waaye man feetu ma quoi dama samay frères yu ñàkk seen bakkan ñi seen tànk ñi seen seen loxo voilà ñi seen bët tuuru na ñi base nañ leen ñi dàq nañ fi ñu liggéeyee ñi ba seen kër papa yi nañ ko ñi génn seen kër yaay seen mbokk yi mer nañ leen bon wax naa nit dugg ma wax ñu ne dama saaga Diomaye man saago ma Diomaye man na laa mën a ànd ak président Diomaye ànd ak président Ousmane Sonko campagne lëmm campagne ñaata at ba benn jour boobu ma ne damay saaga damay saaga Diomaye saaga ma Diomaye donc jël sama wax ji def ko kii tasaare ko nan noo Azoura maa lay yedd non man aw ma problème boobu de man taalibe Sëñ Faalu laa man Sëñ Abdou Karim moo a yar aw ma problème boobu nit laa quoi mais ba leen ba leen jaxase bi quoi yenn yenn patriotes yi ba leen lu ñëw rek ngeen partagé ko wala sama téléphone soo leen mu ngi sone ndax lan man ba may ba may xeex combat bi ñu gis ma leen woon tey la neex Pastef am na ñoo xam ne ba léegi may wax ak yow nii ñu bëri ñëwuñ seet si ma leader yu bëri ñëwuñ seet si ma leader yu bëri damay daj ak ñoom duñ ma bu leen nuyoo duñ ma fay ñoo xam ne xam naa leen ñuy chaque jour ñu dem télé plateau musu ma wax Assane Massa te combat bi teel a neex combat bi jeunesse bi laa ko jegleel jeunesse bi ñoom moom combat bi jeunesse bi ñoo gañe kon Pastef man mënuñ ma fay mënu ma leen a fay ndax ñoo bokk combat bi ñoo bokk mais mais dañuy comprendre sénégalais te xam ne ñun sénégalais dañ la bëgg yaakaar ne man dinaa ànd ak nit man musuma man musuma saaga nit hmm. ku ma xam-xam ne man damaa am xadar boo xam ne lu may wax Ousmane Sonko dama ko gëm mais nag maa ngi jégalu bu baax ci kàddu yi nga xam ne maanaam jot naa ko génne maanaam nit ki ma a waxal ak ki newoon sama live bon voilà nit la c'est nit simple la di leen di leen di leen baal ak di leen wax ne aussi. man mais mais yaa ngi yi ba tey ah. damay wax drapeau moom ma ko. drapeau bi moom ma ñu bëri naan drapeau Sonko. Ah. bi Sonko moo écrit trente mille francs am. tonton jox ma ko. kon drapeau bi drapeau sénégalais moom ma ko. bu ngeen bëggee ma delloo seen drapeau. non non bu ngeen bëggee mun naa tànn keneen Lamine bi mun naa def drapeau bi. te man nag. non yaa ngi moom ah. man xaw ma xaw ma fu may fu may mujjee ëllëg. waaye yàlla naa mujjee ko rafet. waaye man man wàcce naa sénégalais. Ah. wàcce naa Sénégal. bu ngeen bëggee Pastef seen projet bi mu ngi noonu xool ku ngeen man da nga ñaan yàlla projet bi mu aboutir mm. gërëm di leen ñaanal jàmm ak